nee na man duma doomam. damaa jaay damaa jaay sama njureel. jënd ko taalibe sama digg moom. waaye nag. wante nag. ndeke juum. ndeke juumu ma. may na ma de. nee na may na ma de. des na diir bu tuut. yéen ñëpp di ngeen ko xam. te suñ taxawee barsàq di ngeen xam lii mu leen wax.